alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbi awnaka yaa muaynu wa bika nastain euh, jërëjëf sëriñ xaadim noo lay delloo am nuyoo yaag ñi gàndal yépp deen wax wa aleykum salaam wa wa barakaatu di am bu baax ci euh, déplacement bi ngeen def tey ji ñëw seet si daara ji tàbbi nag ci ruq yu sori mu nekk ay sëncaan Eh, ngeen dagg yitte yi ànd ak naaj wi koor gi lépp mu ngi leen di masawu coono yooyu waaye loolu lépp li muy fiir firndeel te koy màndargaal mooy yitte woo ku ngeen yitte woo mbirum sëriñ bi ak liggéeyal ko rawatina tool bii di alxuraan daara ji ngir nu fekk nag ah, mën nañ koo tudde bangaas ci daara yi yi nga xam ne sunu wayjur sanc na ko ak joxe na ndigal eh, ñu sanc ko eh, nun ñu ngi bawoo ci dëkk bu ñuy wax Makka Baas soriwul fu rek bu fekkee da nga bàyyi ko Touba booy jubal Bambey à 7 ci sa wàllu càmmoñ foofu la nekk ñu judd ci daara fekk suñu waajur di jàngale alxuraan daanaka noog suñuy mag ñëpp sox dañoo gane jamono fekk eh, daar yi di riir ci daara ju leen jàngi ba ñu ca bàyyi ko itam sëriñ bi jox nu ndigalal ñu wéyal njàngale alxuraan yaakaar naa lu toll ci 1995 la ñu njëkk indi Touba ci këram daaram ji nii ñu nekk fii di ko fi jàngaleel alxuraan ginnaaw bi daara yu bari it sañc na ko ci dëkk bi teg fa ay njabootam ba ni ma mayee ndigal nag man ma sanc euh, sama barabu bopp wéyal fa ndigal loolu mu joxe mu jàngal alxuraan loolu moo ma indi fii euh, maa ngi fi ñëw 2013 lu ko jiitu maa ngi woon quartier ba ñuy wax tuubaa Njaarim di fa jàngal alxuraan jàng naa ci jaare naa ci fële ca bori marché dégg ba daaru tanzil ñu gën koo xam ci marché dégg ba foofu itam jàngale naa fa lu yàgg yàgg yàgg waaye fii daal la mujj ñëw ak daara ji li ñu fi tax a ñëw itam mooy dabu si barab bu yaatu ngir ñu mën faa mën a jàngale bu baax mën faa yare bu baax man faa taxawal li ñu bëgg a taxawal lépp eh, ci wàllu saytu dongo yeeg taxawu leen ba eh, seen alxuraan mën a ñoŋ ñu mën a ay xam-xam itam kon maa ngi fi ñëw 2013 mu nekk sanc boo xam ne ci njëlbeenu at moom sax ma ñëwee jafe-jafe am na ba ma bàyyi fi pàkk yi delluwaat ndax lii ngay gis muy niru courant wala muy niru ndox yépp ginnaaw bi la waaye booba dëkk bi jafe na doy na war lool euh, ndax tout tànk yi sibru si ñëw ñépp sibruondoo nangam nangam yooyu ñu dem jàllaat ca dëkk ba defaat fab diir dellu siwaat nag waajaat beneen waaj tey ñëwaat ba ñëwee ba tey nag alhamdulilahi rabbil alamin fi toog euh, gis ko woon nii daara ji deme rek di fi jàngale alxuraan jafe-jafe yi lu fi jëre woon junj naa ko sax léegi euh, mooy naka jekk ñun dañuy wut sëñ daara sëñ daara yaa ngi nii toog ngir ñu nuy jàppale ci njàngale mi ndax nun encore dañuy jàngale xam-xam boo fekkee da ngaa bëgg a féetewoo yaar yëpp nag booleeg saytu mbirum kër gi ak yee ci aju yëpp faaw nga wut ay ndimbal ñoo xam ne ñoo lay jàppale ci wàllu woowu waaye jamono bi nu fi jëkk nekk nag euh, sëñ daara yooyu jafe woon na ndax ki nu jàppanteeloon muy jàngale wuy juróom da ko soxlab nawet ci àll ba mu dem naweti ñun ñu toog ci daara ji ak sanc bi ànd ak sibros gone yooyu tax faw dana am lu taxaw benn kër gi dana taxaw wala jëflante bi nit ñi taxaw wala daara ji taxaw te bëgguñu woon dara taxaw moo tax ñu génnoon dem delluwaat bi ñu demee ba nawet bi wàcc ba siburu yi wàññi ko ba tabaarakallaahu ñu dellu siwaat nag waaye bi ñu ñëwee itam jànkoonte nañ fi nag dëgg-dëgg ak ay jafe-jafe ab diir daanaka doonte mën nañ ne wàññiku na ndax bi ñu ñëwee fekkuñu fi woon ndox yàlla di ñu dimbali di ñu defal tawfiq ba quartier bii eh, man maa jug yoor yoor su wenn wenn wenn yor yoor dem ci marché Ocass am ay kilifa yu ma gisanteel foofu ay commerçant waxtaan ak ñoom ci ñàkkum ndoxu barab bi waxuma daara ji waaye kar yi dëkk kër yi wër jafe-jafe ndeysaan am ci koo xam ne ku am yërmande la ku baax la euh, dama daan wax naan sama tur ma ko dégg fenn waaye yàlla moom réeréewutu turam te malaaka yi seere nañ ko daal dina ma nattal fa nga bëgg màgg fa ma natt fii fépp mu ñëw ñu gas ko ñu kii ko kër gu nekk ñu dugal fa robinet kër gu nekk ñu dugal fa robinet moo nu ndox gis nga fële sëñ Moustapha Mbacke mële nga xam ne dañ koo may courant euh, mu des mu indil lu ko ba nale yàlla dogal ñu dem ci kilifay Senelec bi waxtaan ak ñoom ñaan leen ñoo na ko yokkal ba indil nu ko fii ci daara ji moom itam kon wàll woowu jaaxle googu daal di tàmbulee jeex euh, nekkinu donk yi nag mu des ndax daara ji euh, bu fekkee donko yi dañuy xëy yelwaani ndékki door a ñëw añ ñu yelwaani añ door a ñëw reer ñu yelwaani reer door a ñëw kon mel na ni bu nuy tudd daaray cosaan da ngay wax ne daaray cosaan ngoo ko waaw da nga wax ne daaray cosaan ngoo ko waaye nag dafa système bu ñu ci def boo xam ne dañ koy sant sunu dëkkandoo yu ñu dëkkal mooy dañoo def lu ñuy tuddee ndey daara mooy quartier bi kenn ku nekk da jël benn dongo muy sa doomi daara bu ko defee dongo boobu moom kooku mooy ndey daaram sunu jàngee ba teg seeni jukki dañuy dem teg seeni i bool dellu siwaat ci daara ci continuer seen bind ak seen i ñàkk seen i def dégg nga bu demee ba waxtu lekk jot kenn ku ne da ngay dem fekk ñu tibbal la sa bool na mu ware nga xam ne li ñuy wax njaxasaan moom day daal di dàqu du am da nga dañ lay sa bool na mu ware bu ko defee nga dellu si daal di xewlu li nga war a xewloo lépp euh, muy añ bi muy reer bi loolu moo fi jëlee ŋàbb pot di wéyaluy yelwaanee sarax ngir yàlla nangam loolu moom mënatu kii ndax loolu moo ko fi jëlee kon loolu da xam ne taw féex la ak ndimbal loo xam ne am na ci barab yi nga xam nga daara ju ne damay wax ne ñi nga dëkkal boo waxtaanee ak ñoom dana mën a woyof boole woon nañ ci sax bu yére yi tilimee léeg-léeg ay ay nit ñëw jàpp ci fóot xam naa waaye loolu bu leen ko soñju dañu daal ko daanaka dañ koy bàyyi donc ñuy fóotal seen bopp yu baree baree bari ak jigéen ñi li leen mën a jàppale ñu leen koy jàppale waaye loolu ñun ñoo woote woon fii proposé leen loolu ngir ñu jàpp ci daa nga gis benn benn dongo am ñetti ndey daara nga xam ne ñetti bool lay taaj wala sax léeg-léeg ñeenti ndey daara léeg-léeg nga gis ko am sax juróom bay maye kenn ko xeet yu mel noonu day am léeg-léeg nag way juri ndongo itam dañ leen di sant bu baax leen gërëm li si mor mbay si waxam ne ku ma jox ab dongo maa la waaye way juru ndongo it da nga ciy tase ku man ak koo xam ne ku mën a jëlat gis koo xam ne alxuraan da koy ñor mu bëgg ko lool waaye man marub nag di def la ca war moom lu jafee jafe la doon te dongo yi gox bu nekk jóge nañ fa am na ñoo xam ne fii ci dëkk bi lañ jóge am ñoo xam ne ca bawal lañ jóge am ñoo xam ne daanaka ci barab yi gën a sori lañ jóge bi ngay ñëw léegi waajur yi ma fekk may jokk moom ma nga ca gannaaw altu ndàngal ma ca kaw a kaw côté yooyu lañ jógee kon day wane ne barab yu fasanti ko rek lu ñuy jógee waaw barab yu fasanti ko lu ñuy jógee euh, ngi sant nag yàlla bu baax ci jamono bi nga xam ne xam naa sax ñàkkul nii da ci agsi muy xew-xew yi balaa beeg nangam-nangam bi mu xewee am nañu ay ndimbal suñu boram jox na nañu ay ndimbal yoo xam ne euh, ay ban volonté ñoo xam ne dañoo jóg ngir yàlla di yëkkati seen lëf di joxe ndax léeg nit woo la nga ñëw mu yëkkati saako ceeb jox la ne la ma jàppe ko ci daara ji bu ko defee nga teg ko ci daara ji léeg nit ñëw ne la saako ceeb bi jël ko yóbbu ci daara ji nga léeg-léeg nit ñëw suukar si yóbbu ko ci daara ji ba bu yàggut maire Abdoul Ahad Ka bi nga xam ne mooy maire dëkk bi joxe na fii ab ceeb ci village bi ñu indi lu mat juróom juróom-benn saako ci quartier bi waaye juróom-benn saako ci quartier xam nga dana doy waar ñu naan nañ ko jox ñu ko ñëpp na ñoo aajowoo gaa yi këlëmtikoo ko daanaka ku ne ay kilos yi néew nga ci am waaye man bi ma ko jotee euh, dafa woo ma ñëw mu yëkkati lu mat ton ak genn wàll jox ma ko waaye ma ñëwee itam sañu ma koo téye ne daara ji rek déedéet damaa woo dëkkandoo yeeg ñëpp ñu bokk ndax balaa bi fépp la agsi te ñun ñëpp ñoo ci bokk yëg te it ginnaaw ñoo doon jàppale gone yi démb ak bërki démb te bu mbir mi jeexee ñooy wéy di jàppale donc yi di bërki démb ak bërki démb nekkul lu ñuy assumer daara ji dañ ko jël bokk ak ñoom rek mu jeex sama jafe daara bokk na ci nag euh, lu daara yu bari jàmbat gis nga mbaar mii waa Touba ci kanam ñoo ko fi defal waaye mbaar mee moom cosaan mee moom ngeen fekkoon ñu nekkoon ci te mbaar mee boo ko xoolee xam ne nawet moom duurut lu nit mën a ron beneen bi mooy nekkuwaay yi nekkuwaay yi ndax daara ak kër bokkul fii man def naa fi ay nawet yoo xam ne bu dee taw dongo yi dañuy seddoo néeg jigéen ñi waaw damay tëdd ci néeg bi soxna yi tëdd dongo yi tëdd ci def naa fi nawet yoo xam noonu la noonu la demee dégg ba yàlla dogal naal naan falee di fa di ci kër kër di ci góorgóorlu gis nga fii am na ñaari eh, pièces yoo xam ne liggéey nañ ko ba mu rancé xadd ko rek moo des bu yàll yàlla dimbalee ba nu xadd ko dana do balay suuf see laal ndoxa laal suuf dana doon dimbal bu baax a baax ci wàllu nekkuwaay yi dal bu fekkee jafe-jafe am na dañuy wax nekkuwaay ak daara yi mën a sàkkitu ba wëru ba doon ay benn bunt loolu dana gën a sange bu baax a baax dongo yi dana leen gën a mën a téye bu baax baax ci wàllu yooyu loolu daal laaj bu dee ci dund moom alhamdulilahi ñi ñu ciy jàppale ñu ngi ciy jàppale euh, bu dee ci wàllu faj itam euh, ñaari euh, poste de santé yi mu seq mooy camp baa ngi ni nga jàkkaloo camp gendarmerie bi bu Thiawéne bi ak poste santé bi nga am ne topp moo fi nekk fii tin moo fi nekk ak gaa yi mu fi nekkal tabaarkalla ñu ngi ciy jàpp bu dara jotee donc buñ ko yóbboo danañ ci def seen kéem kartan la mënta ñàkk la nga xam ne moo mën a ñàkk la mënta ñàkk nag ñu door a làmb suñu poste jënd loola loolu itam ñu ngi jàppale ci googu wàll suñ borom it bu mu nuy suturaal ba xeeti si buróob nangam nangam yooyu yëpp moom gëj na ci dara ji man ni door a ñëw daal at mu njëkk moom doy na waar waaye at ci des yëpp moom tabarakallahu daanaka da ngay yëgu rek mu cosati benn dongo képp ñu gaaw yóbbu ko ci kii ñu toppatoo ko ndax barab baa ngi nii rek ñu ko toppatoo del siwaat loolu daal di jeex tàkk loolu moom suñu borom mosul nañ ci wàllu woowu sëñ daar yi nag moom ñoom itam xam nga dañoo borom kër lay doon boo xam ne day jàng alxuraan ba noppi bëgg alxuraan waaw day jàng alxuraan ba noppi wëlbati ko bëgg nag alxuraan tànn dem ci delluwaat ci daara di jàngale su ko defee kooku it faw nag da ngay warloog moom ak pay bu ko defee loola mooy tax mu mën a lijjanti ay yittey boppam ak ay soxlaay boppam ba mën a talle la dongo yi pour loolu du la mën a talle dongo yi waaye da ngay gis ne itam seenu bëgg alxuraan ak seenu xir ci alxuraan tax na euh, euh, lañ leen di fay du fay du tudd ak fay day mel ni rek ku dul liggéey ñu lay neexal du tudd sax ak fay ndax ndax ndax ndax ñàkk solo gu muy ñàkk solo te mën na am lu ko gën a bari ci yeneen i barab yoo xam ne ñoo gën a jëkk aduna waaye seenu bëgg alxuraan day waral nag ñu mën a toog ci barab yi sooñu yi wañ su yi barab yoo xam ne boo ñëwee ngelaw laa ngi eh, daanaka tubaarkàlla taxul mu sotti ne mel na mel na waaye yooyu yëpp dañ ci seenu jaayante da leen di may rek ñoom itam ñu toog ngir xam ne alxuraan it ak payam dëgg dëgg ëllëg la ñun am nañu ay activité yoo xam ne du du sax activité yu yaatu waaye suñu borom mu ngi ñuy dimbali ci la ñuy war a feye ñii ak la ñuy war a yore yore njaboot gi yàlla mu ngi ñu bu baax a baax baax a baax léegi lay wax ak menn bokk ne ko sëriñ bi moom ay taw fi xam yaatu na ndax léeg-léeg nit di amee xéewal yoo xam ne xamul sax fu mu koy bàyyi ko loolu moom mooy li ma la mën a wax moom xawma sax fu may bàyyi ko waaye suñ borom mu ngi ni defal tawféex ju yaatu nag ci euh, waxtu wu nekk rek terewul nag nuy aajowoo ay ndimbal ni ko daara yëpp aajowoo ndax bu ngeen ñëwee ci daara ji xool situation yi di ngeen ko fekkee da ngeen xam ne daara ji aajowoo na ndimbal waaw tey boo ma laajaan luy sa aajo dama naan ñu miir ko mu doon benn bunt xada néegi raax ko loolu laa lay wax loolu mooy première li nga xam ne man lu ma dikkalan ci loolu la koy def mooy mieux comme doon bind bunt xaddi nii gi rax ko dër ko dégg nga ay lalak ay nangam def ci biir yooyu loolu laay jëkk a wax dégg nga ndax euh, ñun daara lañ fi naal jàkkaa ngi nii doon jumaa ñu naal ko fondement ko pàkk bi sëñ euh, be saaw sunu bàyyi mbay saaw yàlla na ko fi yàlla yàggal moo ne ko jox fii itam depuis 2013 na doon na doon néegu bi yàlla ma ne kon nañ ko yéenee teg jumaa ñu teg xeer wi ci ndigal si Ibrahima Sow ñu daal te teg foofu daal di koy fondement ci lañ ci man daal di bàyyi noonu di xaar rek lu suñu borom wërsëgal ñu def ko ci waaw moom xam nga dafa léegi la ma sa mbokk mii di wax sëñ sëñ maam Thierno naan ma li ma lay xam-xam ak li may yàgg yàgg ci xam la mosumaa xam ne sax nag da ngay yor daal ak di ci yëngoog nangam waaye ma ne ko yàgg ñu bari yàgg ñu baree bari ndax nii waa lu lu mel nii am maanaam ay nit ñu ñëw daara ji tax leen jóg ñu ñëw waxtaan ak dongo yi seet leen gëstu def ay laaj nangam loolu moom daanaka bu ma nee mëslaam it xëy na bariwul daal fekkee waaw dégg loolu mooy waral xëy na ñu bari duñu xam loolu <clears throat> waaye ñun nag sunu liggéey dëgg mooy jàngale alxuraan ak jàngale xam-xam loolu mooy sunu liggéey dëgg boo amee lu ci dolliku mooy di waxtaanee lislaam di waxtaane sëñ Tuuba da ko gis ci plateau plateau télévision yi di ko gis ci rajo yi di ko gis ci tànt yi cant yi ak màggal yi ak nangam-nangam yooyu danañ ci faral di feeñ taarif nag moom ak jagle la yàllaa koy maye te may nañu ko waaw taalif ak jagle la koo xam ne euh, dañu wax ne ashaaru fannun wa mawhiba wala mawhibatun fannun loo ci wax baax na maanaam don la bu yàlla lay jox nit ki euh, loolu nag daanaka mën naa ne rek euh, dañ koo xàmmiwaale ndax suñu xam ne bu ma la nee bi may tàmbali taarif di way boobu tasawur zixaar bi ñuy tàmbalee njàngum xam-xam ci Tuubaa ci nun taar bi boobu booba nun jeexalagun ko maa ngi koy jàng nag waaye jeexalu moom booba tàmbali naa di di bind di way nii di nangam donte li ngay def mën naa jub mën naa dëng mën naa damm mën naa nangam waaye booba yëg naa ne don bi moom mu ngi ànd ak man tàmbali naa di ko def ba fa tabarakallahu suñ borom yaatal na ci surub jéego ba eh, am nañ ci lu ne nag am nañ ci lu bari xëy na loolu mooy cosaan li sax nag ndax eh, dañuy wax ne garab gu ne loo fa gajjee moo fay jébbee eh, al uruq dasaas dëgg la sunu wajur sëñ Mbay Baas Eh, yàlla na ko fi yàlla gën a yàggal te dolli ko wér ci barkeb Serigne Touba ci Makabas defe naa wet googu ñu bari ràññi na jëmmam ñiy dégg aw turam ab jéegoom it sori na lool eh, ci penku ak ci sawu ci waxtaani Serigne Touba ak waxtaani lislaam ak yu ni mel loolu it mooy sunu xeñtu ci ci wàllu woowu ba na gën a siin yi loolu rek moo ci sunu xeñtu ndax nit nag bu fekkee eh, sol na daal lu bàyyam ak di ko roy tooñut <laughs> loolu lañ jàngoon bu fekkee nit a ngi roy bàyyam tooñut ku sa bàyyi daal tooñoo <laughs> waaye ndokk bi suñ borom dogalee it mu aw ci yoon wa nga xam ne yoon la woo xam ne wu jaadoo roy la